salaamaaleykum euh, les internautes euh, ñi nga xam ne ñu ngi seetaan fii nga xam ne mooy Baol Time première chaîne télévisée bu Diourbel ñu fas yéene cee def euh, benn émission bu tudd ànd suqali sa gox ñu invité ci suñu ñaari naataango yi nga xamante ne ñoom ñoom suñu invité du jour ñu fas yéene waxtaan ak ñoom lépp la xamante ne mooy jëmale goxu Diourbel kanam ma jox leen kàddu gi. donc man la Kalidou Camara nekk président ODCAV bu Diourbel. donc ñuy rafetlu invitation bi tey donc di nuyu mbokk téléspectateurs yi ak mbokk internautes yi nga xam dañu ñuy suivre euh, fii ci Baol Time waaw. si maa ngi leen di ngi lay ak mbokk internautes yëpp loolu kenn du waxee. di jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfee ci seen euh, présentation rafet na ñu jàll euh, ci question léegi ñu leen di laaj euh, première question bi maanaam ñun ñu ngi dégg ASC ASC association sportive et culturelle est-ce que moo bi li mu laaj dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yéen yi est-ce que yéen a ngi koy jëfee. waaw comme ni ñu ko waxee moo bi ni ñu ko ni ñu ko expliqué mooy association sportive et culturelle. donc d' abord pour participer si nawetaan pour nga nekk membre affilié si nawetaan il faut def nga nekk association donc je pense que ni critère ko. côté sport bi mooy que ni SP mooy côté sport bi donc ASC bu participer bu ne di nga bokk ci compétition muy football donc je pense que ni côté boobu tamit motoon nañ ko. beneen bi mooy culture bi mooy say bi donc li nga wax mooy que ni ASC chaque euh, début de saison wala si biir mi saison bi dañuy organiser des compétitions culturelles donc ASC di si def. donc moom ay niveau championnat am au niveau zonal am au niveau département am au niveau euh, régional ba am au niveau national donc ñun loolu lépp matal nañ ko ba weesu ko tam ba mën a defaat dafa ah, mën na pourquoi pas ñu ne ASC économique donc yokk ci dem ci volet économique bi. léegi yéen ci wàllum culturel bi si seen i gox est-ce que des fois théâtrekat yi nit ñi ci gis seen bopp booy rappeurs yi est-ce que ñu ngi ci gis seen bopp. voilà côté volet culturel bi. Mm-hmm. je crois que ñun suñuy règlement daf ko prévoir. Mhm. ASC bu deful euh, veille culturelle. Mhm. am na sanction bu lay xaar. Mhm. maintenant nag am na ñoo xamante ni ñu ngi ko respecté am na ñoo xam ne respecté wuñu ko am na ñoo xamante ni football bi lañ gën a accentué wu que que que le volet culturel mais euh, n'empêche que ñu ngi def suñuy jéego di def de telle sorte que di ci xar suñu tànk ba de telle sorte que ASC yëpp jëm ko organiser ñu ngi leen jéem teg sanction yooyu volet culturel waruñu ko bàyyi mu res tantôt que au niveau national aussi musuñu musuñu bañ a organiser phase nationale football sans organiser phase nationale au théâtre donc volet mm-hmm. culturel bi ñun même ñu suñu ñi ci kaw suñu supérieurs yi dañuy dafay ci ko ñu def ko ma bëggoon xam euh, la moo waral euh, ñàkk déggoo bi am entre ASC e yi la moo waral ñàkk déggoo boobu bon problème bi am Diourbel ñëpp xam nañ ko te des fois bëgguñu particulier problème bi di ko di ko wax si ay problème mu structure nawetaan di ko yemale si nawetaan. Mhm. parce que footballu Diourbel yëpp moo moo am problème. donc il faudrait que les acteurs du football Diourbel ñëw dajaloo xool quel est le problème diagnostic bi def problème diagnostic mais boo xoolee souvent rek bu amee rek c' est toujours après le renouvellement. il faut que ñi bàyyi teg intérêt personnel yi donc xool ni euh, sport bi dafa war a jëm kanam te Diourbel am na am na am na ay talent. c'est pas la première fois amoon na fi amoon na fi amaan na fi bon à chaque fois problème bi période comme ni ko Khalid di waxee léegi problème période renouvellement lay amee. Mhm. parce que à chaque fois que ñuy ñuy préparer renouvellement renouvellement si base bi lay commencer au niveau des ASC. E. Mhm. ASC e yi ñooy changer def président et cetera secrétaire général trésorier ak mandat trois délégués pour chaque ASC e yónnee ko au niveau du de l'ODCAV foofu ñu renouveler. zone yi. Mhm. ODCAV ORCAV ba dem au niveau national mais à chaque fois que suñu su suñuy renouveler. Mhm. instance euh, inférieure comme ay zone yeeg yi nii ODCAV moo koy superviser mais bu ñu demee bay renouveler au niveau départemental à chaque fois da ngay gis ñuy convoquer le préfet pour mu yónnee inspecteur des sports mais dañuy convoquer ñu yónnee ñu gis ne euh, def nañu renouvellement yi ci yoon. Mhm. ñu yónnee leen PV yeeg yëpp. mais après da gis ñi nga xamante ni gagné nañ leen wala affaire yooyu d'accord ñu mer génn te kenn ku ne am nga liberté wu euh, def sa association bopp. ci yoon donc voilà léegi bu ñu demee ci préfet aussi moom du leen ko bañal mais je crois a jël euh, war a war a ay kii. ay matuwaay ay matuwaay. Mhm. les autorités administratives. instant yi ñu ngi en en bonne voie pour ñu ñu ñu ñu jubóo nekkaat benn. Euh, ñu ngi wax ay pré réunification. kon yéen a ci yoon bi daal. ñoo ngi ci yoon bi bon du ma. mais du ma du sotti na. mais à quatre-vingt-dix pour cent comme li ma waxoon laa lay wax ne man sotti na jàpp naa dina sotti te dinañ ci danañ danañ ci àgg jàmm incha allah. yow président loolu loo ci xalaat. donc ñu si tànk yooyu. am nañ ci def ay démarches. donc wax wax wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ba fii ñu waxante yow nii. Mhm. ah am nañ ci xel mu dal. léegi yéen en tant que membre ASC. Mhm. est-ce que yéen a ngi sensibiliser seen mhm. pour maanaam des fois ngeen def ay seet setal seen i des fois ngeen def ay reboisement mhm. des fois ngeen def ay don de sang mhm. que dañoo ne suqali sama gox mhm. donc gox bi da ko war di suqali à chaque fois li nga lépp dëgg la parce que boo xoolee ñun dañu prévoir lépp ñun nawetaan dañu prévoir lépp suñu règlement li nga wax lépp lépp lépp lépp am na benn commission buy occupé buy occupé wu loolu donc boo xee ci environnement am na vice président chargé de l'environnement boo santé hygiène bi loolu lépp am na am na suñu règlement donc on est ko mais da ngay il faut que nit ñi comprendre que ni ñun association privée la. privée comprendre donc amuñu yenn compétence yi di intervenir fenn sans l'aval de l'administration wala autorité publique yi fi nekk. Mhm. comprendre te projet boobu ngay wax nii tey reboisement set setal donc domaine compétence bi mairie moom moo ko moom. Mhm. mais ñun y a de cela cinq mois ngi nii adressé nañ euh, commune bi maire bi adressé nañ ko correspondance. Mhm. defal ko projet. maanaam les nawetaan du Sessène comment dafa ko projet bi depuis le premier mars ñu envoyé ko courrier bi. ba jusqu'à présent ñu wax te yow nii jotuñu réponse. gisoo leen benn réponse gis ñu benn réponse léegi est-ce que léegi ñun suñu suñu ñun ñun kan mooy fautif ñun fautif wu ñu comment. Mhm. actuellement ni ñu ngi préparer le 4 août journée de l'arbre. Mhm. donc saisir woon nañ ko xamoon nañu conscient woon nañ que ni si dëkk bi actuellement nii tey war nañ mën a def set setal war nañ mën a def reboisement war nañ def loolu lépp. mais ba léegi nii bientôt août même pas vingt jours. bientôt waaw même pas vingt jours. tu as mm-hmm. donc bu ñu bu ñu répondre noonu par rapport suñu projet boobu. donc tey mën nañ tey ab par exemple teg suñu programme par rapport ak les ASC ASC bu si nekk supposons tey ASC bu si wala deux cent garab donc par rapport ak les soixante macha allah yaa ngi ko ma on peut implanter en une journée on peut implanter plus de six mille arbres à Diourbel. Mhm. yaa ngi ko ma mhm. donc mais est ce que autorité bi moom conscient na ci loolu noonu. waaw Ama Diallo ko moom loolu war nañ ci taxaw. même bu fekkee jarul ñu leen ciy xaar sax ñun ñu anticiper ci bu boobaay même bu ñu ci wóoyatu ñun nañ dem bon daa ñu xaar. démb rek su guddi ñu ngi ciy waxtaan yàlla xam na ko maa moom donc am nañ ci xalaat mais daal li ma la mën a wax mënuñ ci sori parce que bëgguñu aussi ñu ne ñu ay ay ay dañuy politiser politiser affaire affaire yooyu wala boog dañoo am temps contre voilà donc mu ngi noonu daal ñun temas euh, solitaire la ñuy def actuellement parce que ça fait plus de mën naa wax trois ans yi nii accompagné wuñu les ASC jotuñu seen subvention kon yéenay demal seen bopp. ñooy demal suñu bopp lépp lu ñuy def ñoo koy jënd suñu bopp jotuñu ba léegi nii maa yow jotuñu deux ans yi xaw ma trois ans. ba nawetaan ngi waaj a ñëwaat nii. ban na trois ans xaw ma quatre ans yi maire yi joxul subvention. léegi ma bëggoon a xam euh, xam nga des fois nga dëkk ci koñ bi kii dëkk ci koñ bi dara du leen séparé ñu dagg fa ñaari équipe koñ bi am équipe koñ bi am équipe léegi souvent loolu lan moo koy waral. wax naa wax naa moo koy waral d'association c'est-à-dire tey suñu remplir les conditions yi tax yu war a mën a ay ñoo man a am ASC mënuñ leen ko bañ mais nag ñun comme ni la ko kal waxee ba ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla xaw ma ñu fi weesu mais ba ñëwee ba léegi ñun ñu ngi jëm indi frein sur ça parce que jàpp nañ ne région Diourbel li mu toll ASC dañoo bari dañoo bari de trop bari dëgg yàlla moo tax pratiquement boo xoolee dañ mercenariat dafa bari soo boo demee ci yenn région yi dañ naan Diourbel la ñuy frauder moo ëpp parce que li fi nekk ci ASC e ñoom mënuñu am joueur yu toll noonu dañuy obligé dem di wuti ay joueurs ci biti. Mhm. te bu ñu demee ci biti rek joueurs yu jàmbur la ñu am. waaw boo xoolee ñun ñoo fi ëpp ay cadre réserve ay problème de réserve pratiquement parfois sax day dem ba tardé suñuy nawetaan. ok d' accord léegi xam naa ñu ngi ci jeexantalu émission bi ban solution ngeen di lancé. ak ban appel ngeen di lancé gouvernement bi mu jàppale leen. donc euh, appel bu ñuy lancé mooy mooy que ñu lu euh, ñu lancé gouvernement pour mu jàppale les ASC mooy comme na gën a yokk loxoom donc mu ñuy jàppale mu ñuy jàppale ñu ngi koy gis donc par rapport ak les projets ñu ngi koy gis mais na gën a yokk mais tamit sport xamuñu ni dañuy yëngatu si sport mooy que ni ko Pape Kassé waxee léegi il faut que ñu xam ne Diourbel c'est une grande ville te boobu léegi ñu ngi jox ay promesses par rapport ak stade bi affaire donc sport bi mënut a développer Diourbel tant que amul fu ñu ko pratiquer muy stade bi donc nañ jéem a def lu tout ba stade bi ñu defar ko ba nit ñi mën ci football jeunes exprimer wu ci talent yi génn si nit ñi xam tout cela fële noonu donc loolu mu loolu mooy appel bi nga xamante ne ñu ngi koy lancer les autorités. bala maa bala maa wax euh, état bi sax damay wax euh, damay njëkk a lancer fii appel si autorités maa ngi lancer appel à Sadio Ndiaye ñoom mu nekk président conseil départemental ñu gën a si di jàppale jàppale jàppale sport Diourbel ñu mën a organiser coupe du maire coupe départementale yi président conseil départemental bi di ko di ko di ko di ko di ko présider comme li fi xewoon njëkk dëgg yàlla kon donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen euh, delloo njukkal di wax ne suñu émission bi mu mi ngi tudd ànd suqali sa gox ñu ngi koy amaat euh, ci beneen weer euh, chaque mois dinañ ci am beneen benn invité te chaque mois tamit di ngeen ci découvrir la nga xamante ne mooy mooy gàllankooru Jurbel ak li waral Jurbel mënta jëm kanam ba suñu jonn yàlla ji parce que boo seetloo ba ñu juddoo ba léegi ak ni ñu toll nii Jurbel fi mu nekk la nekk ba tey amul benn avancement donc émission bi loolu moo ko tax a jóg ñu ngi leen di jox dig daje ci suñu yeneen i émission ak yeneen i invité jërë ngeen jëf